أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بكي السلام عليكم ورحمة الله ابن عباس رضي الله عنهما dafa لي لو أمصلو لو خمني soññee la ci bépp jullit mu ne sallallahu alayhi wa sallam doon waar bis di leen ñaax di leen soññ ba àgg ci ne leen na ngeen waajal seen bàmmeel ndax kat bàmmeel ci boppam dina woo doomu aadama bi bés bu set juróom-ñaari yoon di waxanteeg mom nan ko yow ya doomu adama bi yermal iya, sa bop ci sa dund bi bala ngaa ñëw fii fi manam maanaam nga doole lol yermal sa bop ci li ngay nekk ci kaw suuf ndax kat bo ñewé fi fi man iya, te nekké won top yalla di ko di jëfe ndigalam di moytu terrain dinaa la yërëm man tamit te mbegte rekk nga fi fekk ci mbégte rekk lay jëflanteek yow boo yërëmu sa bopp nag man duma la yërëm te xamal ne kër gu fees dell ki ay sax la kërug réccu la kër gu xat la kër gu fees dell ki jiit la yow doomu aadama maa ngi lay artu ngir dunduk àddina bañ laa war faw nga jar si fii fi man ndax sa tukki bi nga xam ne faw nga def ko muy jóge àddina jëm alaaxira may wàccuwaay bi ngay njëkk a jaar kon bàmmeel kenn du ko teggi bàmmeel ne ko nag boo muccee ci yi fiy xew maanaam yi xew ci biir bàmmeel muy njàqare yi tiit mi mbugalum bàmmeel mu dal ne ko kon xamal ne dinga mucc ci yeneen tartar yi nekk ci yoon bi bàmmeel ne doomu aadama bi yow doomu aadama bi man maay këru mer duma ma yërëm waxambaane mi ngëru waxambaaneem du yërëm gone gi ngëru ngoneem du ma yërëm mag ngirum mageen du ma yërëm màggat ngirum màggatam duma ma yërëm kudut ki yërëm boppam bokk yi xadis boobu ab soññe la bu rëy soññe la ci bàyyi xel bàmmeel ak bés penc ba ab soññe la ci gën a góor góorlu ci jaamu yàlla li meluak wax nak ne yeureumal sa bop moy yeureum sa bop ci mbugalum bàmmeel yeureum gi sa bop nak moy di def la la cey musal te moy top yalla te moom bàmmeel yërëm gim lay yeureum momit mi ngi aju ci sa top yalla lo don don xale ak lo magat magat yonam nekkul ci moom kay dangay ngay jëfe ndigali yàlla loo man di moytu ay tereem loo man bu ko defee doo fa gis dara looy ragal wala nga jàpp ñàkk a jëfe ndigal yi dëkk faw naqar ak i metti ba man xiyam ñu fàttali rekk ne tëraayu bàmmeel yàgg na lool lool lool ba àdduna sosoo ba léegi ña ñépp ña nga ba tey kenn demagut àjjana kenn demagut àllax kenn demagut sawara kenn du jóg te bés penc ba taxaw kon bokk yi ab soññe ngoog boo xam ne ku ne war na ko bàyyi xel bu baax a baax nanu yàlla doole dimbale doole ñu suturaal تيار تيرم قال لك بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته